Thank you.

aw ma lu contentement di nuyu waa VIP people ñëpp di bëggee sama grand Tange Tandian di contentement ndax yàgg na jàpp ci carrière El Keita kon di kontaan daal ci seen teewaay fii. ndax ñu dublu ci waxtaan bi ndax ñun dañu tam euh Hadj bu ñuy commencer suñu émission Sama Star rek dañuy commencer ci présentation wax ñu tuuti sa jaar-jaar El Keita. wa sama jaar-jaar euh <clears throat> El Hadj Keita ben jeune là, bu bëgg musique yàgg gëm musique yàgg dund musique yàlla def ci ma tel ci voyager nak, teel ci voyager am ci tuuti expérience mais pas trop parce que dañuy jàng ba léegi ay ndaw lañu euh, dem naa fi Mali représenter Sénégal pour pour euh, pour euh, nga xam c'était en 2008 2008 demna naa def Kasanga Euh, waa Mali macha allah accueillir ma bëgg ma lool ma def fa sama clip sama premier clip foofu laa ko defee Mali pare ba ma jugee 2008 foofu ci laa ñëw nag taxawal sama groupe ba ma ñëwee taxawal sama groupe suñ borom def ñuy joué boobu amaguñu album sax euh, nit yi di ñu wuy si boobu ba léegi maa ngi sant yàlla jaar nañ tamit l'Afrique ak nañ ko ab talent loolu yëpp ci jaar jaar bi la rachketa euh, daal benn jeune boo xam ni dafa teel a bëgg musique teel cee dugg euh, ba pare bëgg ko xam nga lépp looy def moom boo ko bëggee rek suñ borom dala ci teg loxo waaw loolu képp la di ñaan yàlla nag mu yegg liñ suñu yoon ñu continuer ci jàmm béggal suñu askan bégal suñu sunu suñu suñu ñu yaakaar ak ci musique euh, ba pare béggal suñu bopp tamit parce que dina toll benn moment boo xam ne plaisir lay doon ci yow doo ci séntu dara nañ lool ci loolu mais balaa ñuy gën a xóotal waxtaan bi pourquoi le Neymar de sa génération. a ah, loolu nag sunu dijaay sunu sunu lépp bubs moom ko tuddee. Mhm. waaw Boubacar Diallo moom ko tuddee xam naa moom moom xam nga dafa yàgg jàpp ci carrière El Hadj Keita. Mhm. moom ko tuddee tudde wu ko sama bopp noonu la demee moom moom daal. moo ma xool waaw ne Neymar waaw Neymar yàlla def concert yu ñu daan joué yëpp ay maillot Neymar lañ daan sol fans yu jigéen yu góor yi ñëpp moom lañ daan sol mm-hmm. loolu nag ci moom la jóge xam nga yàlla def def moom moom dafa am barké waaw bu lu mu wax rek suñu borom da ci teg loxo non la mmh. démé mom makoy nuyu de passage Boubacar Diallo di kontaan ci mom mmh. tey ci biir loolu dégg nañ sa biir waxtaan yaa ngi doon wax sa relation ak waa Mali donc lan mooy sa relation ak Mali en fait parce que sa jaar-jaar maa ngi dégg nga ni def nga fa Mali te ci biir loolu gis nañ ne xam nga ñaari clip yoo xam ne biir Mali nga ko tourné mmh. donc sa waaral sa relation ak waa Mali lan la bien sûr relation bu rafet la macha allah parce que Kassanga moom fa yóbbu woon ñu def kaas sanga te kaas sanga dafa daan am ay ay ay ay ay jours yoo xam ne dañ daan seeti artistes yu mag nekk yi Mali yëpp. Mm-hmm. yàlla def gisante naag foofu Amadou et Mariam. Mm-hmm. gisante naag Baba Nikoni. Mm-hmm. gisante naag Oumou Sangaré. gisante naag artistes yu bari ay Baba Ñaame def nañ featuring bu bu gisante naag artistes yu bari te fépp foo artiste doon joué ci Mali rek joué naa fa. muy Amadou ampaté bab sen sen sen sen sen kibi euh fini jouer joué mhm. spectacle mhm. ak palais des arts bi nga xam tamit fofu spectacle yi am yépp ay Africa show ay grand sumu yu ndaw yooyu yëpp fa amé jouer joué fa mhm. noonu la démé motax euh, dafa dafa ibbi daf ma ibbi daf ma wan musique <clears throat> amul frontière ba paré daf ma dafa gën a yokk sama expérience Mali bambara parce que musique bi ñuy woyee traditionnelle bi dafa kawe malien yi fu ñuy woyee ak malien yi fu ñuy woyee dafa kawe dafa yéeme mm-hmm. loolu xaw na ma dimbali ci sama carrière dimbali na moo bu baax waaw Mhm. man le phénomène de sa génération laa lay tuddee ndax El Hadji yow bi ngay commencé feesal boîte de nuit boobu amoo ça sax album El Hadji bi nga commencé penc mi xam nga ne du caaxaan koy feesal bi nga koy ça dëgg dëgg dëgg booba say album génnagul bu ñu jógee penc mi fii nga xam ne soreetuñu muy Soumbédioune foofu tamit euh, bi nga koy feesal euh, nee naa la booba album donc ban relation nga am ak say fans lan mooy secret exactement Son secret mooy am ak jàmm ñëpp ba pare gën a wàccee sama bopp parce que li may wax chaque jour ne ñun duñu ay star <clears throat> ñii ñuy ñii ñuy commenter suñuy vidéo ñuy aimer suñuy video <laughs> ñuy ñëw suñu soire ñu ñuy may xaalis ñoom ñooy star yi parce que ñoom ñoo lay yëkkati ñoom ñooy tax nit yi xam la ñoom ñooy dem di wax sa tur ñun duñ dara yàlla dafa def ñu nekk devant la scène rek mais duñ ci dara ñoom ñooy lépp ñoom ñi nga xam ne ñoo ñuy dooleel comme yéen ñi nga xam ne yéen ñu ñëw di ñu jël di ñu wane yéen ay star yéen ñu gën a nekk star sax parce que mais yàlla day def xam nga rek ñun euh, euh, ñi am na ñoo xam ne ñoo nekk à l'ombre ñoo gën a ñoo gën a seen liggéey mooy gën a baax ka mooy gën a feeñ ka que ñun ñu nekk ci ci kanam parce que ñoom ñoo ñuy def loo ñun ñuy def ñun juste ay ay sikkim lañ gëstoo ñu yóbbaale. Mhm. noonu la demee mais affaire bi moom taalibe la rek. Euh, ñun lu ñu xaw a jaaxal ñun média bi El Hadj Keita dafa yore public boppam maanaam El Hadj bu sax ci buntu këram kenn dootu fa xaj sa public boobu maanaam secret bi maanaam lan la. secret bi moom laa leen wax oyof bi ak am ak jàmm ñëpp. respecté ñëpp parce que fi nga dëkk boo leen respecté rek ñu respecté la nga am jàmm maanaam àdduna da ngay ut da ngay fexe ut base. Mm. base mooy lan fi nga dëkk nañ la bëgg ba pare. Mm. man alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah damay santaat yàlla. Mm-hmm. ci loolu fi ma dëkk ñoo ma njëkk bëgg. avant maa dem feneen kon loolu rek sant la moo tax damay gën a damay gën a wàccee sama bopp damay gën a duggante ak samay nit damay gën a rester humble modeste parce que loolu rek moo lay may fii parce que àdduna fii du dara am na ñoo xam ne euh, siwoon nañ fi mais tey déggatoo leen. parce que simplicité daal mooy lépp ci àdduna àdduna. say texte kan moo ciy liggéey. samay texte maa koy bindal samay bopp. <laughs> mais fan euh, mais nag mais nag jamono jii. <laughs> Euh, bëgg naa bëgg naa ñeneen di ma bindal parce que loolu mooy àdduna. ku doyloo sa xel rek. <laughs> loolu doyloo sa xel baaxul par exemple saa da ngay wut xelu mag ñi. am na am naa ay mag yoo xam ni ñu ngi may boole ñoom. <laughs> léegi fan yi man dama fay dem ñu may bindal euh, di ma wax tamit parce que doo xam lépp. ñun ay xale lañu. <laughs> noonu la demee. ñoo daan bindal suñu bopp nag dañ daan toog parce que inspiration moom fu ne lay jógee parce que mun nga toog guddi gi nii yëpp doo nelaw am lu ñëw sa xel. <laughs> nga toog. bu fekkee instrumentiste nga da ngay jóg ka ci sa guitare. damay mais man mais ba tey ci say son ba léegi El Hadj tu es trop rek ngay gën a woy ndax tout récemment yaa ngi génne benn vidéo bu cartonné muy wuyu ma te wuyu ma tamit ba tey mbëggeel la El Hadj lu xew dañ la fase wala boog da nga nobaate wala boog lu xew. tu es trop sentimental. dama kii rek dama dama dama sentimental rek dama. dama bëgg rek dama amura da amura ah, parce que tamit euh, euh, àdduna lépp amour la hmm. àdduna lépp amour la ngay bëggee sa yaay amour la li ngay bëggee sa liggéey amour la lépp loo bëgg di def amour nga ci am ba pare lépp mbëggeel la lépp mbégte la maanaam mooy da ngay xëy suba ah euh, di dund loo xam ne dina la neex parfois te dund loo xam ne neexu la mais parfois da ngay yemale lu neex. Mhm. ak lu naqari ndax fii àdduna la pare saa suñu borom moo ñuy def euh, ay nit yoo xam ne da ngay sentir lu neex. parrain saa nga sentir lu lu naqari. Mhm. loolu mooy àdduna dañ ñoo mooñaale loolu. parrain saa day neex parrain saa mu metti mais lépp looy def te amul amour.

bi bokk sama yaay ndey ak baay Pape Birahim ak Laay Ñas Laay mi ngi Paris ñoom ñett ñoo daan rabandoo maa daan nekk seen booy daan yéeg hmm. di fecc maa leen daan feccal billaahi Birahim xam na li may wax ba pare maa ngi moom relation yi euh, yàlla dafa def maintenant euh, kër gu la neex dugg hmm. kër gu la neex parce que yàgg nañu xamante yàgg na ñëpp xamante hmm. ñëpp xamante noonu la demee Pape Birahim sama mag la sama xarit la dam daf dañ daan toog di jouer ndoo guitare soirée am yëpp dem na yëpp soirée Pape boo dem mm-hmm. boo da nga gis El Hadj Keita waaw mm-hmm. man amuma problème boobu ba pare jibi sëy sama xarit la moom su ma demee soirée moom daf may jox micro bi ne ma wayal mm-hmm. dem taxaw fële ma way lu ma neex ma pare jël xaalis di kii ñu niñ ma joxoon yëpp ma koy jox mu ne ma eh, téel ba pare dollil ma ci. Mm-hmm. Jibi Sey sama xarit la. Mm-hmm. yàlla dafa def euh, te ñoom dañoo am talent ñoom laa fekk. Mm-hmm. ñoom ñooy samay mag. ñoom ñoo may tete nee naa leen ñoom ñooy jiitu ma topp seen ginnaaw. waaw affaire bi ñun topp góor topp ci góor la. waaw topp tànk topp tànk parce que escalier la mais yàlla mooy def euh, mujjee feeñ njëkk siiw. noonu la demee noonu rek loolu képp la. Mhm. mais ñoom samay mag lañ njóogu afiya man ak moom démb la ca Sikar sa cant ga moom xam na man xam naa muy sama xarit. taalibe Serigne Afia Mbacke Fallilou mhm. ma koy siyaar bu baax moom ak Cheikh Mbaye xamante nañ bu baax loolu démb la ca mhm. diwaanu Galas. macha yaakaar naa ne c'est important ci li nga wax ni nga leer. El Hadj ñu ngi dërmal euh, guddi gu rëy. bis bu rëy xam ne àdduna woon nga këpp a ngi koy xaar rawatina waa Médina muy le le 24 décembre ca Grand Théâtre mais El Hadj balaa ñuy dugg ci waxtaan bi gisoo ne da yéex a dugg Grand Théâtre waaw waaw yéex na yéexul yéex na yéexul àdduna adduna doo yàqamti benn àdduna lu jot yomba hmm. waaw lu jot rek suñu borom def ko mu ngi doogay jot man loolu laay wax chaque jour mu ngi doogay jot ndax bu dekkoon bu fekkoon dem grand théâtre la rek bu yàgg da waroon nañ fa dem bu yàgg waaw mais comme mu ngi doogay jot mooy dafa jot ñu El Hadj Keita dem grand théâtre loolu la suñu borom namoon te macha allah jot na le 24 décembre 2019 fekk ma génnee vaar yàlla def ci teg ci loxo mm-hmm. ñu bari di ma ci xam ma ci ñu bari doog may découvrir mm-hmm. ah kon yoon la nag ñu dem grand théâtre wane suñu bopp du demuñu fa ndax ay grand théâtre yàlla na fees wala dara ah, déedéet non non non non man dewuma fa ndax loolu dama bëgg wane suma bopp wan Sénégal ni mën naa way mm-hmm. loolu rek moom ma tax a jóg du ay ay ay mu fees wala ay kii déedéet dama leen di wan ni man je peux ba pare mun naa way mun naa def spectacle mën naa waye feneen fu ñu ko foogeewul. c'est important nga leeral ko parce que ñu bëri ñu ngi naan El Hadj Keita est-ce que mën na feesal grand théâtre. feesal du problème feesal du problème. sama sax risque la bi mu ko jëlee. un mois laa ko jël gars un mois laa ko jël ñu bari dañuy toog quatre mois cinq mois. def hmm. bi def ki man un mois laa ko jël mois et demi bokk wala. Hmm. un mois vingt cinq mois laa ko jël. waa waaw parce que xam lu tax rafet njort. Hmm. benn ñaar gëm sama liggéey ñett xam ni a ah, àdduna fii jàmbar amu fi. ku hmm. ñu jàppale rek moo fi am ñun ñëpp dañuy ay xale lañu yàlla mooy def ñun nit yi ñëw nit yi ñoo ñuy bëggal seen bopp. d'accord te boo amee nit yàq da ngay wane am nga ay nit. c' est juste ça damay. tey ñu ñëw ci grand théâtre bi ndax même date bi sax c' est une date phare gis nañ ne le 24 décembre fête la fii si mim réew fête la aussi ci suñu mbokku chrétien yi pourquoi nga choisir date boobu. waaw euh, alhamdulilah ndax date boobu yàgg nañ ko am date boobu dama ko miin. Mm-hmm. décembre yàgg naa ci tëgg noonu fii concert. Mm-hmm. chaque 24 décembre RH Keita dafa doon may concert réussisse <laughs> réussisse laa ko daan def fii nii waaw yàlla def ñëpp di ñëw di di déglu si musique waaw ren nag ma ne il est temps ñu dem grand théâtre xool def fa spectacle bi mu tëju fermé wu mm-hmm. parce que Régis bi moom dañ daan baare ñëpp <laughs> dañ daan baare tali bi. Mhm. nit yi du ñu mën a jàll du ñu mën a ñuy wàcc. duñ pour ñëpp ren ma yóbbu ko Grand Théâtre peesal mhm. teg naa ko ci loxo yàlla. Mhm. man woote naa. dégg nga mooy yàlla mooy baaxal. lu baax suñu borom la lu am yàlla moo ci teg loxo waaye ay feesal du ay problème ndax fees ñun yàgg nañ man wembale laay xalaat nga may wax ay waxu grand théâtre xalaatuma sax grand théâtre ay wémbale ay bëgg naa man ay stade de France laa wax de feesal bi du fii grand théâtre feesal yooyu noonu man waxuma fi man su ma demee niveau international foofu laay xalaat ay fees fi nga dëkk du problème mais génn bi mooy niveau international boo xam ni foofu kenn xamul la kenn xamul El Hadj Keita yaayam kenn xamul papaam kenn xamul ki lan nga doon kenn xamul lijjantiwuñu sa origine ak lépp ñoom musique la ñuy dund foofu boo ko feesalee après Mon gàcce ngaala succès total merci. Tu ci biir la ah, de wax di suñu papa de suñu grand muy grand papa Youssou Ndour mm. génnee album mais mu defati buzz. album bi ñu ben ci son muy nay nay El Hadj Keita wër na àdduna wër nga këpp xale jigéen yaa ngi challenge de gaaruwaale góor ñi góor ñi tamit di ci challenge di ci mer lan nga gisee loolu en tant que le star planétaire euh, génnee album ben ci morceau mi def buzz. yée papa Youssou Ndour nu mu def yoon la ñun ay waykat ñun mm-hmm. ñun mooy suñu référence mm-hmm. mënuñu leen lu dul d'accord ci lu mu def mm-hmm. waaw mais nga moom xamee wuñ ko ci domaine boobu affaire buzz ak yooyu donc bu génnee benn son rek euh, mu def buzz ay xaw a jaaxal nit ñi eh papa Youssou Ndour la suma papa la bàyyi Birane Ndour lu mu def yoon la <laughs> d'accord mbokk euh, mbokk non dégg naa la jël naa papa Youssou Ndour ay papa Thione Seck ay papa Ismaïla Lo papa Bam Mal ay ay ay ay ay Cheikh Lo mm-hmm. ñooñu yàlla dafa def lu ñu def dagan na baax na ñun garaawul ñun ay xalala ñun ay xale lañ ñun ñu ngi topp seen tànk mbokk internet euh, VIP people euh, lii lañ leen indiloon tey seen émission bi ngeen doon taamu say su ne muy samay star tey nag yaakaar naa ne émission bi ala daw mi na ndax nee naa leen ci njëlbeen euh, ndaanaan lañ dalaloon El Hadj Keita lan ngay di woowaat autorité yëpp euh, di woo waa Sénégal di woo banlieue bi ndax dama fa am ay fans di woo waa Thiès région yi waa Thiès parce que joué naa fa diwoo woo waa Mbour Saly joué naa fa tamit euh, di woo àdduna bi yëpp parce que seen doom moo xewle te mënuñu dara ñu ngi doog yi dem foofu euh, di ñaan yàlla rek moom mi mën yàlla ñu defal succès ak ndam waaw di woo monsieur le maire Bamba Fall di woo Messi Medina Cheikh Ahmed Tidiane Ba di woo Pape Abdoulaye Seck di woo Seydou Gueye di woo euh, Birane Ndour di woo Biba Sok di woo Youssou Dial mhm. di woo Ba di woo ñëpp ñëpp parce que moo limee rek jum mhm. ba pare invité naa nag ñëpp mhm. wa VIP people invité naa leen ñëw New ñu yëngal Grand Théâtre incha allah am succès réussir total foofa toj

ñaari sponsor yoo xam ne mënuma leen ñàkk remercier muy salon la Sophie coiffure beeg maquillage bu yanj bi ñoom ñoo fi jaar ñu ngi nekk bachelem en ci c'était Bissap euh, l'indiqué, numéro numéro téléphone bi dit 77 692 84 63 77 692 84 63 waaye tamit robe bu yànji bii ngeen ma gis ma ne ci sama fauteuil fi terminus 35 36 à 49 numéro de téléphone de 78 180 37 75 boo leen fa doxantuwee rek ci ñaari endroit yi ma leen limal di ngeen gis neex donc di leen jox dig daje beneen yoon beneen Go, ak beneen daanaan biir merci